dañ ne ñoom duñ laal duñu jege. am ñi xam ne dañuy def ay flirt yu nànk-nànk. am ñoo xam ne dañuy vivre ak seeni copine comme exactement si j'étais mariée daal ban ban ban catégorie nga bokk. waaw man nag moom damay laal damay jege quoi tout simple damay laal damay jege. du nekk sujet tabou quoi mais dama lay wax moom léegi célibataire ak marié pour man amul différence xam nga la mooy différence yi jàkka ja ak imam xutba ko léegi célibataires ils font comme les mariés loolu moom qu'on soit très clair avec ça quoi loolu moom si réew la bëgg en tant que célibataire vous gis des fois ngeen nek euh, des fois comme des vidéos pornographiques est-ce que tey jii doo duré ci célibat est-ce que vous avez dit dem ba nek accro ci vidéo yoy? bon les vidéos pornographiques c'est juste une question de sensation et de désir ou bien c'est une question d'état d'esprit en fait mais parce que man pour man de pornographique peut-être qu'ils ils n'ont pas ou genre expulser leurs envies, leurs pulsions et leurs appétits quoi. Et yow ce célibat tu choisir ou boog ci ay contraintes Mon célibat pour moi, bon c'est pas une question de soi mais c'est une question de situation en fait parce que peut-être ma situation moi moo je ma rompre avec euh, la vie en célibat quoi. mais doo amoon conseil tey euh, tous les célibataires là lay conseil bu may jox célibataires moi, madame

et moom conseil yi ma len jox mom jigen mom da nga wara gëm sa bop parce que jigen mom mën na ne moy référence la dal mais nga top sa ndaw affaire yi comme liñ nane ay boy town affaire yi bu mu jaral la ngay def yeen dund fi ñun ñep ay boy town lañ fi lañ juddoo yaroo fi magge fi mais amna na yo xam dañ ko jomm a def lool la leen conseil daal. mom ñi nga xam dañ koy sétan amna lu mu leen def peut-être dañ ci jëlé plaisir motax tax yow doo ko kon. non non man mu du ma sétan mu so ko mu so ko sétan même pas une seule fois. <laughs> maa ngi tudd Laye Diaw. mënul ñaax ci couple parce que nit mënoo ko bëgg mu seet si la te nga du ngeen flirté quoi loolu mooy li mënul ñaax. mais maanaam yow daal doo doo yegg au bout daal. non non du ma yegg au bout. la. Ah, parce que tamit parfois même su ma ko bëggee sax façon façon ëch yi may jël ñoom bëgguñu loolu parce que man benn gel laa am tax quoi même parfois sama yaram tàng ma bëgg ko sax mais xam nga ëch du ma ci bàyyi quoi yaa ngi je suis pas accro quoi parce que pour man loolu da lay sonal rek parce que gis nga man mom maa ci entraînement chaque jour te pour man loolu perdre mal quoi limay dac ci terrain yi bu ma nekkee fii di sérane ay vidéo porno mom pour man dépasser na loolu mais loolu tamit man ñi ngay def duma len leen blâmer quoi parce que c'est naturel nit nit kese le mën donne looloo tax quoi. do amone ben euh, conseil boy jox tay célibataire yi lan lay doon. ah célibataire yi li len leen di ñu xool jigéen ju baax rek duñ mëna négal bo xamanteni genre dina len mëna jappalé quoi ci luñu gëna mëna té sen bobu parce que tamit nit boppam rek la am quoi. Mohamed laa tudd gars yi di ma wax rappeur alliance Médafor. Mohamed yow célibataire nga. man waaw célibataire laa kay. léegi damaa bëgg nga wax ma ban genre célibataire nga parce que dafa am ay célibataire yoo xam ne dañuy toog xaar yàlla naan ñoom duñu lu ñu laal duñu jege am ñoo xam ne dañu naan dañuy flirt flirt bu xaw a ndaw nii rek mais am ñoo xam ne dañuy dund en couple ak seen i copine comme si ñoom ils étaient mariés daal yow léegi damaa bëgg nga xam ci ñett yow ban que tey jii nii ci nekk yow xam nga da ngay xam sa bopp mais ku nekk tamit na nga nëbu li gën a bon ci sa bopp comprendre nga parce que tey jii nii peut-être ki nga xam ni moom dafay nekk ak gel bi jàpp ni que moom jabaram la te alors que moom du jabaram xam na ni mu ngi njaaloo te mu ngi koy def kon su boobaa daf fekk ni loolu moom la neex dundam la kon loolu moom la concerné léegi yow tey jii nii genre yooyu noonu boo demee yow ba nga xam ni yow da ngay dem di ko seetaan kon bu boobaa jaratul woon ngay toog xaar naan sama waa gaale wala lii boo demee ba mu toll la foofu demal nga takki jabar parce que loolu noonu tey jii nii gars dañ ko bëgg a jàppee lu ndaw nii nii nii nii mais loolu lu rëy la parce que tey jii am na ñoo xam ni ah amuñu ko wala fonctionné wuñu ba tey jii benn goutte boobu noonu ngay sànni ñoom bu bu ñu sañoon ñoom instant bi ni ñu jox leen ko ñu mën ci am doom kon tey njaboot njaboot goog ngay jël di sànni noonu tamit c'est pas logique quoi. te doo amoon benn conseil booy jox célibataire yi ban lan lay doon. célibataire yi conseil bi ma leen di jox leen kese la mooy ku ci am loo takkee demal nga takki ku ci amagul loo takkee góorgóorlu nga rayante ko nga dem nga takki. te sëy xama dafa nekk loo xam ni dafa sacré quoi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si nan nga tudd. man maa ngi tudd Mamy Bopp madame Gaye. ah yow kon maam madame nga doo célibataire. non non du ma célibataire. waaye léegi man bëgg xam euh, lan nga xalaat yow ci célibataire yi actuellement fii ci Sénégal. Hmm, célibataire yi moom xalaat li ma xalaat si ñoom moom li ñu jël moom temps yi dafa da du loo xam ne lu baax la daal ndax ñun ba ñuy célibataire ñun xamuñu woon nii xale yi xam dëgg fa yàlla. léegi damaa dégg célibataire yu bëri naan du ñu xamut du ñu du ñu du ñu nekkul ak seeni góor wala boog du ñu nekkul ci flirt ak yooyu du ñu marié yooyu peut-être que jëkkër du leen doy daal maanaam du ñu xam lu bëri. Ah. ah waaw am na am na ñuy wax loolu naan suñu amut fu ñu jaar ak seeni góor du ñu xam lu bari te du ñu joŋe loolu dégg naa ko mais du loolu de wax dëgg yàlla ndax boo gëstoo rek di nga xam nan nga war a yoree sa boroom kër dëgg fa yàlla est-ce que yow accord nga ci célibataire yi jigéen ñi surtout yi naan euh, balaa ñoo marié góor dañuy vérifier. non non d' d'accord ma ci loolu. léegi pour yow war ñu vérifier. Euh, jigéen ñi ñooy vérifier wala góor ñi. jigéen ñi dañuy vérifier. ah dañuy vérifier. ah waaw loolu moom d' d'accord ma ci ndax bu ñu vérifier dinañ am lu leen si leer. léegi du léegi yow kon maanaam daal yow loolu d' d'accord ci nii. nii d'accord ma ci. góor kay war a vérifier. léegi góor war góor waruñu ko vérifier. góor ah man ci sama xalaat amu. loolu dëgg yàlla moom <laughs> doyuma daal. <laughs> am ci loo xamante ne nga ne nga foog ne lii ca ne fekk loolu neju newu ci waa léegi yow du ñu ba pare si bis bi après nga gis ne li fa doy la looy def ah foofu moom tam wax nga fa dëgg wax nga dëgg de loolu tam dëgg la parce que yenn saa nga am surprise si góor loolu moom dëgg la léegi boobaa looy def ah di nga découragé de dëgg fa yàlla <laughs> di nga am lu la bett daal wax nga dëgg vérifier bi baax léegi yow daa mën conseil booy jox célibataire la ban conseil lay doon. ah ñu vérifier comme fi nga njëkkee man ma la doon naan loolu du noonu parce que sa biir sa biir yi wax ba nga yegsee laa xam ne kon vérifier bi baax na. waaw kon jërëjëf bilaay soxna si. en tant que kii marié. waaw merci beaucoup soxna si. waaw kay jërëjëf. jaa ngeen jëf merci. asalaamaaleykum. maaleykum salaam madame. sëñ bi noo tudd. man maa ngi tudd Adama. boo xoolee troisième ak deuxième benn la rek parce que day boo jigéen boo nekkee moom en plus nga bëgg ko ah te yàlla tax doo ko bëggee de soxna am na yoo xam ne doo fa egg ak moom loolu dundul mbëggeel ànd balaa génne nag ngeen toggee koos ah oui. loolu daal mooy dundal mbëggeel pour yow. lépp ci la daal yaa mu ngeen a xam mënuñu ñàkk yow on sait yow xamante nga bu baax bu ma bu ma. waa léegi dama bëgg a xam yow est ce que da ngay seetaan vidéo porno yow. vidéo. porno non jamais. musoo ko seetaan. non pour te dire au début mais dana am mais pour l'instant du ma ko seetaan. tax nga bàyyi ko. dafa am loo xam ne yoo xam ne damaa dem bëj bi xam ne lii amul avenir yaa ngi dégg parce que boo xoolee période bi ñu toll tey jii ku ne yaa ngi téléphone muy mag ak ndaw xale yi si bu neex nga dugg fi internet yi yaa ngi mais danga koy dem ba seetaan da nga xam ne damay seet loo xam ne li amul njëriñ yaa ngi dégg bu fekkee ne am na lu njëriñ tey jii ah di nga ko seetaan mais lu man lu may jëlee jëmale kanam laay xool man loolu léegi doo amoon conseil booy jox tey célibataire lan lay doon. ah man de célibataire yi man maa ngi lay conseillé si man tey jii boo ci amee tey koo gën a tey jii mu bëgg la nga bëgg ko ah boo ko mënee takk nga takk ko yaa ngi en plus nak na fek muy liggey ngay liggey nga koy jappelé yaay ngi man loolu lay dund téji même ki ma nekkal téji ma koy remercier bu baax té té la ko gën bëgg téji ah. merci beaucoup. señ mi na nga def. maa ngi fi ça va wax man nan nga tudd. man ma ngi tudd Youssou Ba. fi nga fi nga dëkk cité bi. wa ma ngi dëkk ni ci ginnaw cité bi rek. waaw tey dañoon waxtaan un peu ci célibat lég man ma bëggoon xam ban catégorie célibataire yow nga nekk. ah fi nga dugg mom yéme na dé waaw man moom célibataire moom célibataire laa moom wax dëgg fa yàlla mais taxul tamit ma maa ngi en couple instant bi nii maa ngi maa ngi en couple soo déggee célibataire man célibataire dama ko jàppee loo xam ne maanaam genre xam na mënoo ne célibataire nga pare yaa ngi en couple mais man en couple dama ko jàppee nii comme ça nga takk jabar dëgg dëgg dëgg dëgg waaw comme comme ni ko nit ñi di waxee rek ay façon célibataire yu bëree am yooyu noonu mais man moom damaa nekk célibataire boo xam ne mën naa wax yemuma waaw léegi doo doo waxee yemoo c'est-à-dire. waaw cest à lu marié di dund rek maa ngi koy dund man tamit. kon yow daal ci troisième catégorie bi nga bokk. ah <laughs> yow troisième nga ko teg. ah dama ne ñetti catégorie moo am. Oh. ñi toog ne laaluñu defuñu dara. Mhm. deuxième bi ne bon dañuy frotte frotte innocent. Mhm. troisième bi ne day def lépp lu marié def loolu nga ma wax léegi. waaw ah, man waaw kon maa ngi ci troisième bi fekkee troisième bi nga ko teg na boobu si premier bi laa ko tegoon. léegi kon yow pour bu difficile bi yow pour yow lan la. ah bu ah bu difficile bi kay mooy ballon d'or bi rek. la mooy ballon d'or. Ah, mooy doom bi. léegi nga ma bëgg a xam duñ ne célibataire du ñàkk ñu boole si ëmp peu euh, yi ñu seetaan maanaam pornographie tout ça est ce que nga yaakaar doo nekkee célibataire surtout lu xaw a yàgg est ce que doo ci nekk un peu accro. waaw célibataire maanaam su ma si nekkee lu yàgg man yaakaar ma dinaa si accro carrément comme tamit mu nga si accro xam nga man su ma la waxee man su ma la waxee comme si que euh, sama sama célibataire maa ngi en couple en couple boo xam ne maa ngi dund comme jëkkër ak jabar li dund yëpp ah maanaam man ku may génne sax bañ na ba jabar laa ko jàppee kon maanaam am na yenn affaire yoo xam ne mun ma si dem ba accord aussi parce que jabar rek laa ko jàppee maanaam man instant nii jàpp naa ni leen rek moo si mooy dem ñaani ko ñaani ko soxna def farata jàpp naa loolu moo si demee instant nii jabar laa ko jàppee parce que instant xale bu ndaw laa moom tamit xale la comprendre nga liggéeyuma am dëgg la maa ngi maa ngi def formation mais pareeguma carrément te instant nii yoraguma xaalis bu ma koy takkee peut-être su ma yoree xaalis bu ma kay takkee sax mais après lu ma koy yoree moom mooy nekk problème bi ndax takk yomb na mais yor bi moo jafe. Mhm. léegi yow ni may déggee ngay wax nii c'est comme si même seen assez normal pour yow nga dund ak sa copine comme ay jëkkër ak jabar sans pourtant ngeen nekk marié. waaw loolu moom loolu moom sans dépendre tamit si couple yi rek parce que man man loolu noonu mën Ah, comme jëkkër ak jabar comme jëkkër ak jabar ñu koy dundee mais si kaw après moom lay takk par force su ko su ko yàlla dogalee maanaam ñu ñaar si kenn deewul comprends nga mais am na ñoo xam ne dañ lay jël ñëw ba pare après dem xooli keneen moom mu dox ma si yooyu bay na ba monogamie laay signé. Mhm. léegi daal assurance boobu daal nga def. Ah, assurance boobu laa def moom. waaye léegi doo amee benn conseil daal boo jox jeunes yi tey ñu nekk célibataire ak yooyu la nga leen wax. loolu moom maa maa leen maa leen wax ñoom ñu ñu jéem a teey régler xale yu jigéen ñi tamit parce que xale yu góor yi moom dëgg la man góor laa mais xale yu góor yi moom ay saay-saay leen tamit comprendre nga am na ñoo xam ne comme sànq ni mu la ko expliqué rek ñi mun leen ñëw jël la utiliser la ba ba pare bàyyi la comme fii ñu bëri ni ñuy def am na ñoo xam ne tamit ñoom su la xasee boo utiliser rek ah duñu am sax